nga xam ne même salafu saalix mag ju baax ña noonu lañ ko daan taggi taabiina yaag atbaau taabiin ak jimmi saxaaba yi ku demee ni Aïcha ak ku demee ni Umar euh, ak ku demee ni Muawiya Muawiya jëmmam nga xam ne chia yi lënt bu nekk jamono ji ne ñu ngi koy indi di yàq waaw lënt bu nekk jamono ji rek ñu ngi koy indi di yàq Muawiya ibn Abi Sufyaan ci jëmmam bi mu yëgee ne Ali ibn Abi Talib daa faatu daa jooy bi mu jooyee ba pare xam nga lu mu wax dañuy xam-xam dem na fiqe dem na boo demee ci al-Isti'aab li Abdul Barr day wax ne wa kaana Mu'aawiya yaktubu fi ma yanzilu bihi li yus'ala yaktubu fi ma fi ma yanzilu bihi li yus'ala lahu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu an dhalik فلما بلغه قتله قال ذهب الفقه والعلم بموت علي بن أبي طالب فقال له أخوه عتبة لا يسمع هذا منك أهل الشام فقال له لحني عنك maanaam Muawiya ci jëmm Muawiya maanaam bu ma saan am lu ko lënt masala bu ko lënt rek day bind benn lettre yónne ko Ali pour mu defal ko ci pour mu defal ko ci fatwa comme ni ko alimam ibnu ajba di ratale ci alistiab fi maxrafal ashab Muawiya bi mu yëgee ne Ali rey nañ ko faat nañ ko xam nga lu mu wax dafa ne zahaba zahaba al fiqhu wal ilmu bi mawti ibni abi talib maanaam xam-xam dee xam-xam jeex na fiq jeex na xam-xam jeex na sa mi ngi jeexee ci faatu ibni abi talib ji kon loo may tekk ne jëmmi Muawiya ci yemam amma li ñëw ci muslim nag nga xam ne day wax ne maaman aka anta su ba aba turab nga xam ne chia yi dañ ci bëgg lii loolu tekkiw ko ndax xadis boobu ci jëmmam awalan muslim am nañu lu mu njëkk a leeral ci njëlbeenu muslim ci ci muslim am na am na am na lu mu njëkk a leeral ci ay sartam ci ni muy indee xadis xadis boobu rek boo ko doon boo ko doon lijjanti fi mu ne comparé ko charte yi muslim teg da nga gis ne xadis boobu doy aw lay beneen mooy ci maanaa bi maaman aka boobu tekkiwut ne Muawiya dafa ŋàññ Ali danañ leeral ci diggante doxante diggante Muawiya ak Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib waaye ngir leeral ci ne xam-xamu Ali Muawiya jëmam da ko doon seede daan yónni bind ay leetar di ko yónni Ali Ali pour mu ko ci tontu bi mu yégee ne Ali faatu na comme ni Ibn Abdul Barri wax bokk laa wax comme ni Ibn Abdul Barri wax Ibn Abdul Barri moo koy taxat al-istiab dafa dafa jooy daan ne fiq dem na xam-xam dem na ci faatu gi nga xam ne moom la Ibn Abi Talib ji faatu muy Ali Ibn Abi Talib faatu gi mu faatu moo waral xam-xam dem na kon loolu mooy loolu mooy xam-xam bi ko yàlla joxoon moom Ali nabi Talib waaw kon loolu loolu li muy tekk mooy Ali nabi Talib ku saxaaba yi fonkoon la ku saxaaba yi fonkoon la ku mag ñu baax ñu fonkoon la Ali bokkoon na ci ay waxam ak ay ak ay xekmam xeetu xam-xamam قبلك ابن سعد نتلت السبقة لو هني والله ما نزلت آية إلا قد علمت كيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسا ناطقا عير الجمع دارت نرال واحدة من دي أمول بيننا يواتي لودنا خمنا فم واتي أكيهم واتي أكيهم واتي مخيال دماما يخلق دماما دماما دماما يخلق بمنتك ميما لمي ولمي ومنتب علي أبي سعد صلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار لا أجب جتيري يا لبي ndax lay yi wàcc guddé ba ci yëpp yu ci bari xamna mana xamna ko amul benn wàcc lidul man xamna ko loolu it bokko na ci euh ali bokko na ci karama yi nga xamné euh ali amon nako ali ibn abi talib amon nako nga xamné bo démé ali alimam ibnu al alxajar alhaysami ca alsawaiq almuxriqa fi raddi ala ala ahli albidaci walzandaqa gis nga bu àggee dafay dafay dafay dafay nettali ay karamaat yu bëree bëri yoo xam ne Ali Abi Talib amoon na ko Sibt ibn al-Jawzi boo demee ca téere boobu di Mir'atul Janaan nga gis foofu muy wax ne wa fi baabi xikaayatun xikaayatun ajiba xaddatani jamaatun min masaayixin bil Iraq nga xam ne ginnaaw bi mu nettali ay karama yoo xam ne Ali ibn Abi Talib moo ko amoon kon Ali ibn Abi Talib bi gàttal mooy nit la woon koo xam ne ku amoon karama la ku yàlla la mayoon basira la it yàlla ko mayoon basira ab gis-gis يلا ما ينكر كلا سبب نيو نيو بكون كأي واحد يام صليم دارك ما الناس نيام فإذا ما ما تنتبهوا لأن أمن يك أسكن النبي عليه السلام وإلى جرب ما موقوف موقوف على على على علي علي دارنا وخنا نني دارنا وكتي فاتنا يو دارنا وخنا الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم لو كشف الغطاء مزدت يقينا مزدت يقينا lolu bokko na ci hikma yi nga xamni ali ibn abi talib dan nako wax ci ay xéti wax yu wax yu lambo hikma way wax yu lambo yit xam-xam bokko na ci so gi na def moy ya xamalat alquran i'malu bihi fa in al'amila man amila bihi bima alim wafaqa 'ilmuhu wa amalu fa aqwa aqwama yahmilu ilman la la yujawizu taraqiyahum tukhalifu sariratuhum 'alaniyatuhum wa yukhalifu 'amaluhum 'ilmuhum yajlisuna hilaqan fayunahi بعدهم ba'dan حتى إن رجل يخدم على جلسه عن يجلس, عن يجلس إلى خيره ويرعه أولئك لا تفعل أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عمل إن من عليم إذا دخلنا وحنا يني ما خمن يني جان القرآن بمنكو خمكو نجنكو جفه نخبر بخم خم دق ما يكين خلنا دا جان جفه لم خم لم يجف أقل لم خم لا دبو waye dana am nit ñew suñu suñu ginnaw bi bo xamni nit ñoo xamni dana jeng xam xam du weesu seeni dandi maanaam seeni maanaam seeni seeni seeni seeni dindi baat nga xam ne nit lañ woo xam ne la ñuy jëf ci suuf ak la ñuy feeñal day wuute seeni jëf ak ak seeni wax day daal di wuute loolu bokk na ci xikma yi nga xam ne Ali ibn Abi Talib daan na ko daan na ko diir daan na wax yi sabu min ash-shaytan am na juróom-ñaar yoo xam ne daa ci shaytan la jógee mooy shiddatul ghadab wa shiddatul utaat wa shiddatul tafaub mooy ay ay dabi da daan wax ne am na juróom ñaari yoo xam ne seytaane koy def ci nit mooy gaaw a mer ak mer na métti métti ak gaaw a bébbali ak di ko def lu métti métti ak dégg ak gaaw a nelaw ci jamono jooy tudd yàlla lu ci bëri bëri seytaane moo koy def lii bokkoon na ci wax yi nga xam ne Ali ibn Abi Talib daan na ko wax bokkoon na ci wax yi nga xam ne Ali xikma xikma yi nga xam ne Ali ibn Abi Talib daan na ko wax it kazalika moy bañ ko laaj ci xadar mooy mbirum bi yàlla nga xamna ne ci jamonoy sahaba yi ji mujj surtout nak mutaaxiru sahaba pas-pasu qadar dafa fa taamane feñ moy pas-pasu qadar moy wax ci dogalu yàlla yi borom tabaraka tabax nga xane buntu yoy ay buntu lay yu gan yo xamne ne ku yalla ko déggul xam-xam deg wo ci xóot ap amir yi xóot bañ ko ko laaje dafa wax ne tariqun muzlimun la tasluquhu la tasluquhu wa bahrun amiqun la tarji sirullahi qad khafi alayka fala tasfihi as sail nee na buntu xadar day dogali saa borom tabaraka taala yoon la wu lëndëm woo xam ne bul ko bul ci dugg mukk géej la gu xóot boo xam ne bul ci sëmb ndax yow daa am foo mën a yem kon loolu la muy teg mooy Ali Abi Talib ko amoon xikma la Ali bin Abi Talib ko amoon xikma la waaye it ku dëddu woon adduna la Ali Abi Talib ku dëddu woon adduna la Ali ku dëddu woon adduna la waaye it ku maanaam ku yàlla mayoon xikma la mayoon ko lamiñu arab bu mat sëkk moo tax bokkoon na ci shuara maanaam shuara u sahaaba bokkoon na ci ñi dàqoon a way ci sahaaba yi te wayam lu ci bëree ba day jëm ci ak gëddu bokk na ci wayam yooyu rek mooy muawiya bi mu waxee xaalid ibn ma'mar ne ko yow bëgg nga ali li tax nga bëgg ko mu ne ko man damaa bëgg ali ngir ñetti mbir mbir mu njëkk mooy ali daa nekk koo xam ne bu le bu meree bu meree rek day day daal lewet maanaam bu ko waxtu mer dikkee foofu day lewet Euh, waaye boo ko ne sama mooy buy wax rek du wax leen lu may dëgg waaye buy àtte ak ak ak maanu képp lay àtte léegi Muawiya Abi Talib Muawiya tamit bi mu bi mu ndamoo bi nga xamee ni Ali dégg na Muawiya mi ngi am am lu muy ndamu ci euh, ay ay maanaam ay waa kër waa kër mag aw askan wi demee xam nga arab yi dañoo bëggoon di ndamu ci seen waa ndax loolu tabiat bu la yàlla bindee woon علي ابي داري جيك جيك دا واخ في يوني ليتا بي نكو اكتب اليه ثم املا ثم املا علي دنيكو بيندل علي دا كو بيند باي محمد النبي اخي وفهري وحمزه سيد شهداء عمي وجعفر الذي يلقي ويضحي يطير مع الملائكه ابن امي وبنت محمد سكني وعرشي منوط لحمها بدمي ولحمي وثبت احمد ابنا يعني وثبت احمد ابنا يومها فايكم له سهم كسهمي سبقتكمه إلى الإسلام ترا غلاما ما بلغت أوان حلمي مرح البيهقي الإمام البيهقي رحمه الله تبارك تعالى المدخل لا يوخني وي وي لي وي لو خامني كين كو جي نغو ورا موكال ا مانام نغو ورا موكال داخ مو نيك ندامال الاسلام داخ علي كون لولو مي تك مي علي اي نغي دال علي لي مخ دي وي موي محمد ميغا خاني موي يونت بي داي موي سما بوك موي سما بوك mooy mooy it mooy kii gorowaale ak man ndax moom moo ko may doomam mooy mooy gorom yunus alayhi salaam lu bari la doon ci ali baayam la mbokkam la ci côté wéy jërëm ak ci côté wéy jërëm ci côté wéy jërëm waaye it kazaalika gorom la moo tax ma ne wa sihri Hamza mi nga xam ne mooy sayyidu shuhada mooy sama bay tax Jaafar mi nga xam ne day xëy di gont di naaw ak malaaka yi xëy na ngëneelu Jaafar ci ci aljanna la bëgg a wax kooku it mooy sama mag دومي محمد دي فاطمة موي سما سخنا موي سما دكالة موي سما كيت نياري سيتي يندو عليه السلام نيخا نوي حسن حسين نيي سما دوم واي كون يين نك مالين جيت الاسلام كون كاف غوغو مو دوخون سي ديغنت معاوي معاوي بو ندامو سي بو يدامو سي او خيتام رك علي بو ندام غيغنا علي لاكاي غاني داخ علي لمكو ابلي بري رضوان الله عليهم اجمعين مو داخ الامام الشافعي دا دان وخني إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتقدير عند ذوي الجهل وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنسب عند ذكري للفضل فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما بحبهما حتى أود حتى أوصل في الرمل شاك عند ما دراه نيون داي بني علي دي وخي واي غنيلم ديكو غنال دي واخ اي غنيلم نيت ني دنيو توالتي نيون اي اي راكه بوري بني تود ابو بكر دي واخ اي غنيلم راكه دي توالتي نيون اي ناس بي kon nañ nekk ay naati bi ak ay rafidi rek Shaafi'i ci moom bëggoon gi mu bëggoon Ali Abi Talib àggoon na ñenn ñi naan ko yow day rafidi nga mu rat ci way iqsid daan ne qaalu taraffadta qultu kalla ma rafdu diini wala i'tiqaadi lakin tawallaytu gayra shakkin خير إمام وخير هادي إن كان حب الولي رفضا فإنني أرفض العبادة نينا قايل نينا ما يرافدينك شافعي لا مش شافعي رحمه الله نينا ما يرافدينك ma ne leen déedéet wallahi rafida du sama giir du sama pas-pas waaye nag dama bëgg ali maa bëgg ali abi talib bu fekkee bëgg ali abi talib jëmam mooy ak rafida kon man ma maa nekk maay rafida bi gën a nekk chiiay ci ci jaam bi kon loolu moo nekkoon waxi shafii ak seede shafii ci ali abi talib moo tax albayhaqiyu rahimahullahu tabaraka taala day wax ne shafii bi wax lii mooy jamono ji nga xam ne xawaari ji ñu jamonoonteel dañ ko doon askan al rafdu ndax dañ koo iñaane woon ndax shafii borom xam-xam la woon

حتى كأنني برد جواب السائلين لأعجب وأكتم ودي مع صفاء مودتي لتسلم من قول الغشاة وأسلموا kon loolu moo nekkoon wax yi nga xam ne salfu salih ak mag ñu baax ña daan nañ ko seede ak noonu lañ noonu wàccuwaay boobu la Ali Abi Talib amoon bu dee faatuk bala ñoo ñëw ci kii bala bu dee faatuk Ali Abi Talib Ali ibn Abi Talib ànd ak ngëneel yi mu am ak liggéey yu rëy yi mu def ci lislaam lu may ne borom bi tabaraka wa taala nam bindi adduna mooy ne wa ma jaalna li basharin min qablika alxuld afa in mitta wa humul xaalidun afa in mitta fa humul xaalidun waaw borom bi tabaraka wa taala wax gi mu wax ne amuñ kenn kuñ defal ak sax waaw ndax ak faatu ni yàlla bindee jamono ala kulli xaali nit ki lu màgg màgg faw mu jaar ca loolu it loolu loolu waral na kon Ali Abi Talib ànd ak ngëneel yu yi ma am ak liggéey bu rëy bi liggéey islam allahuma lu may ne ñawkal faatu wala fetti faatu kat daa jublu ci moom ci mujjub bi da mu daal di faatu waaw Ali Abi Talib mu daal di faatu bi ñu faatu nag faatu faatoo faatu boo xam ne faatu bu tiis la ci xeetu Nabi salaam bu métti ci xeetu Nabi waaye faatu bu tiis la muy rey gi ñu ko rey faatu gi nag bi nga xamee ne nisaa bi mooy li xewoon ci digganteem ak Muawiya loolu des na ko leeral ci kanam li xewoon ci digganteem li xewoon ci digganteem ak Muawiya yaani ak ak ak ak ak Ali Abi Talib bi nga xamee ni xuloo bi xuloo bi diis na ci maanaam yàgg na ci ñoom xëccoo bi muy ay mbir yoo xam ne yu tiit na ci jullit ñi am ñetti kuréel yu bokkoon ci xawaari yi آه، نيتني جي بوق الخوارج كي واخ عبد الرحمن بن ملجم المرادي عليه لعائن الله المتتابعة اك البرك اك عمرو البرك التميمي آه، اك اك عمرو التميمي نيا داجلو سي مكه نك داي داري لالتيني بخه دان ني نك لين بغ موي راي نك ني موي علي بن ابي طالب اك معاويه اك عمرو بن عاص نخ فتوبي métti na guerre bi métti na ci diggante Ali ibn Abi Talib ak Muawiya ibn Abi Sufyan bi guerre bi métti seen diggante eh, yàgg lool ñetti noo ñett ñii di Abdurahman ibn Muljam al Muradi ak Amru Tamimi ak al Barku Tamimi ñu dajaloo ci Makka daal di def seen ab dil waxtaane léegi ñett ñii lañ bëgg a rey mooy Ali ak Muawiya ak Amru bin Aas bu ko defee nag jàmm ñi a noppalu Abdurahman Abdurahman ibn Muljam daan ne man maay féete woo Ali bàyyi leen ma Ali ay bara ko tamit daal ne man maa ban maa féetoo Muawiya bàyyi leen Muawiya Amr ibn Aas ne man bàyyi leen Amr maanaam Amr tamit ne bàyyi leen Amr alayhim la'inullah mutatabi'an waa xamee ne fas nañ seen ab dil ci ne fexe fexe yi ñu lal ña ko fas yéene amal ci guddik fukki fan ak ñaar maanaam fukki fan ak ñaar ak fukki fan ak juróom-ñett ci weer Ramadan ci lañ ko fas yéene amal kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk nag ci la jógee màkka daa maanaam daa daa di dem fa nga xam ne ka nga xam ne moom nga fas yéene rey Abdurahman mal jam dem fa nga xam ne fa la Ali ne wa kadalika albarku tamimi dem ne fa nga xam ne fa la Muawiya mi Sham am amru amru tamit dem fa nga xam ne kenn ku nekk daan dem fa nga xam ne ka nga bëgg rey foofu la ne ba yaa ngi Abdurahman mal jam daa di ñëw Kuufa bi ñëwee Kuufa nag fekk fa ay mbokki xawaarijam xam àggee daa leen wax li bëgg li bëgg ci Ali ndax mbokki xawaarijam ndax ku bon ku bon rek la ma àndal mo lay waxe ni bëgg nak ñu la manam euh kenn ci kuréel bobu noonu ko ñu wax Sabib ibn Ujra al Ashja'i da di d'accord ak mom ak keneen ak keneen yu ñom ñoom bi nga xamé ne àgg nañ ba ci euh fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Ramadan atum ñeen fukk آه، علي بن ابي طالب شي بيسو اجما شي غدي علي دار ييو في جامونو يجل بيم ييو دار واخ دوم جي حسن دا نكو من داي غدي جي داما جنت ام غدي جي داما جنت غيش يونس عليه السلام ما جي داما شي جي داما كو يونس يونس يالا بي ما لقيت من امتك خيرا man day sa ginaaw day sa xéet yi man gisuma ci manam day yow day ma ci ñoom luma neex Eh, eh, yundu ay salaam daan mu nee na ci gént gi yundu ay salaam daan ne ko udullaha alayhim ñaanal leen yàlla ci ñi xam ne ñoo doon noonu ali tamit waaye ali ci mbaaxam nee na ci gént gi ma daal di ñaan yàlla nag ma wootee lu gën li ci noonu eh, wax dëgg yàlla ali abi talib tommanteeg jamono jooju ñu ngi noddu noddukat noddu di wax يقبلون سجل حي على الصلاة حي على الفلاح علي جابي طالب بمو جنة دي دخان ترك شلوكو ناري فايتا يويو بجل جي ناري فايتا لو شبيب ابن عجرة الأفجعي دور الجافي جاس بي داد دانو تبنت بي ابن ملجم نيو جكال فو دور كو الجافي دور كو تجبي با دور كو تكابا daal di daw bu ko defee nag Shabi ibnu Ali tamit daal di génn daal di daw ci noonu ci lañ rayee kooku nga xam ne mooy Ali ibnu Abi Talib am na yeneen riwaay yoo xam ne day ñëw waaye lépp la muy yëpp même maana bi lay joxe maanaam même maana bi lay joxe kon rayin wu métti woow yi ak xeet woowu ci lañ rayee Ali ibnu Abi Talib karrama allahu wajhahu léegi nag loolu mooy li nga xam ne moy fatou Ali nabi Talib waye nonu bi yàlla bi nga xamne mo ray Ali ibn Abi Talib bi Abdurahman ibn Muljam donc am ñeneen ñu wuté ci nak bisu al bisu bisu bisu dimanche la fatou da ay abou Talib bi fatou ñaar rob li al hasan Xukayn ak Abdullah ibn Jaafar ak Muhammad ibn Hanafiya da di koy sang euh nañ ko don sange nak moy Muhammad ibn Hanafiya mo don sotti ndox ak hasan al Xusayn Abdullah ibn Jaafar da manam ñom ñoo don rad Eh, Muhammad ibn Hanafiya di domam nga xamne bokk na ci dom yi gëjëm gëna bëgg daal di koy so doon ndox mi dara ñi daal di wutal ko càngay ni ñi defal julit bu baax ci ko Hasan daal di julle daal di koy denc radiyallahu anhu wa ardaah yàlla na ko borom bi tabaraka wa taala dolle gërem yalla na borom bi tabaraka wa taala gërem ko yalla nañu ko borom bi tabaraka wa taala fayal mu ngi fi Abdurahman ibn muljamit ba xam wute nañ am nañu ne ginnaaw bi moom it moom it yàlla gàccaale ko fii ci àdduna ndax bi dañ ko war a daggate ko daal daggate ko jël téere lakk ko ci sànni duu ko ci safar mu daal di lakk am ñu ne déedéet xasan da ko xasan daa digle ñu jàpp ko dóor ko ci dox ji jaasi mu daal di far jor ko jor ko jaasi ala kulli xaalin daal ñenn ci borom xam ne moom mujj na faatu faatu ko ñaaw a ñaaw te yowmal qiyaam nag ci la yëf yi di gën a tare noonu yi noonu yi la ali bin abi talib génne adina amma nag li dox ci euh noonu la Ali Abi Talib génne àddina amma lu dox ci digganteem ak Muawiya ak aisha euh ci ay coow nga xamné ne mënut a ci doomi adama aw nat la wu yàlla fi lu met wo xamné xam ne sunna wal jamaa yëpp dëppoo nañ ci ne deug deug lu métti la di ahlu sunna wal jamaa duñ par parloo d' nañ ay résultats yëpp d' accord nañ ci ne Muawiya moo nekkoon ci njuumte mbir mi taawil la woon waaye loola ngir leeral ko rek ngir bañ ci ay ngir leeral ko mooy lan mbir mi ngi tàmbaloon ci suuraa ci diisoo gi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ci ñam yaxaroon gi mooy Ali léegi ginnaaw bi nag bi Umar faatoo wa Usman faatu Abdurahman ibn Awf daa jël diisoo ga daa jël list ba ak mbir ma ak liñ ci liñ ko ci waxoon na dafay gaaral ali bañ waxtaanee ñu gis ne kat ñun ñëpp daal dëppoon nañ ci jaayante wax Usman ibn Affan ali tamit nangu ko ali tamit d'accord ak saxaaba yi Abdurahman ibn Awf d'accord ñëpp ñu jaayante Usman ibn Affan ali tamit daal di nangu daal di jaayante Usman comme ni ko alimam ibn Hajar di waxee ci al-Isaaba di wax ne wa sallama ali yo bàyyi Usman bi mu jaayante Usman na boobee ci pare ali mus noonu wut ak Usman mukk jaayante Ousmane nangoo nekk taalibe Ousmane ibn Affan nangoo man nangoo nekk ci njabootu ko Ousmane ibn Affan mu yilif ko ginnaaw loolu nag eh, Ali moom mm, concentré wu ci jàngale xam-xam di tasaare xam-xam di fatwa ci diine ak di leeral ak di jàngale diine biñ demee ba jëmi jamono ñu rey Ousmane ibn Affan ñi daal di koy nit ñi daan jaayante ak Ali Abi Talib léegi nag nit ñi bañ jaayante Ali ibn Abi Talib am ci saxaaba yi mooy Talha ak Zubair ak Aïcha ñoom ba ba ñu ba ñu woon jaayanteeg Ali Abi Talib léegi chiites yi nag dañuy def ay tazwir dañuy def ay loo xam ne dara lu ci dëgg ñoom ba ñu woon jaayante Ali Abi Talib waaye daa am lu bëggoon a def bala ñoo jaayante léegi Ali nag daa di gis ne lay diine du loolu lay diine mooy ñu jaayante pare ndax moo ëpp ak jàmm bi saxaabay bi saxaabay jaayanteeg Ali Talha ak Zubayr ak Aïcha ñoom dañoo gis ne. bala ñoo def mbirum jaayante faaw ñu xool ñi rey Ousmane ñan la fexe ba jàpp leen fexe ba gëstu leen fexe ba ñoom it ñu fayantu al qisas taxaw ci al qisas Aïssa ak Zubayr ak Talha léegi Ali Abi Talib gis ne rek gis na it ne déedéet dëpp wut ak ñoom kon mbir mbirum tawil la mbirum tawil mbirum aw déggin la mbirum wuute dégg ci diine waaleykum salaam mbir mi mbirum wuute ak aw déggin la ci diine mbirum wuute aw déggin la ci diine Euh, ndax ali yaa gis ne daal lay diine mooy lan ñu ñu jaayante maanaam ñu am imam ba pare doo ko def leneen ali de ñi jaayante pare nag bu ko defee ñu ñëpp ñu àndoo xool nag fexe gëstu saytu ñi nga xam ne ñoo reyu Usmaan fexe ba jàpp ñooñu daal leen rey maanaam daal di taxawal attab yàlla ci ñoom léegi nag mm, wuute googu dox seen diggante ci diggante ali ak Zubayr Talha ak Aïcha euh, loolu ma waroon wiqatul jamal boo dégg ñaan yowmal jamal مره ابن ابن حجر رواه ثم كان من قيام جماعة من الصحابة منهم طلحة والزبير وعائشة في طلب دم في طلب دم عثمان فكان من وقعة يوم الجمل مشتهر ثم قام معاوية في أهل الشام لاجي لول مور لول لول دوم مور لول لول كيف مور لول وقعة يوم الجمل لاجي نك كيرن كيرن سونغو نخ borom bi taala moo bindé moo bindé noonu maam nit ku nekk da ngay juub ci loolu nag awité ni Abi sufyan ma nekkoon Sham nga xam ne jamono jooju moo nekkoon amir ba ci jamono Omar la ko nekkoon Omar moo ko tegoon bi usman ñëwee tamit bàyyi ko fa mooy gis na rey nañu usman mooy mu gis ne bala ñoo taxawal benn xi benn xalifa bala ñoo taxawal benn imam benn njiit faaw ñu régler lii ba pare loolu kon gis-gisu diine loolu bisu mbirum caawi la moo tax al imam Abul Qasim Abul Qasim al-Gharnati ca al-Qawaani day wax ne كان الأمر محل اجتهاد فصوب أهل السنة والجماعة علي وأخطأوا معاوية ثم ينبغي أن يمسك عما سجر بينهم ليك معاوية جيت نكون دنيا ورا دنيا ورا دنيا ورا دنيا ورا خال نيري عثمان لولا جوا خال برا برا جت خال ميرم خلاف بيه ما بيجوا من جاين ده أنا ده وين نيفور نن نن نن شخي نن نن نن شخي نيري عثمان يلي جد لين عادي مد جيت نلول يدو دينه loolu dëppoo ak diine kon mbirum mbirum tawil la comme xilaaf ni muy amee ci diggante Malik ak ak ak Shafii ma Malik ni muy gisee ni lii daa war Shafii gis na déedéet lii soppiñ ko wala maa gis ne lii sum na la kii gis na dañ koo sëg ma exemple Malik ni muy gisee ni jullig witar sunna day ngoog du farata Abi Xanifa gis na farata la xilaaf bi maanaam mbirum tawil la mbirum tawil la woon léegi nag loolu moo war doon no awi tamit ne bala ñoo di faaw ñi faaw ñi lijjanti ma Usmaan juyoo dox seen diggante معركة الصفين daal di am معrakatu Siffin daal di am loolu nag loolu la woon Ibn Hajar nee na mbir mi li ko waraloon lépp mooy Ali daa gisoon ni ñoom ñi ñëpp muy Zubayr ak salha ak aisha dañoo wara dug maam dañoo wara dañoo wara jaayante dañoo wara ñëw ñu d'accord ci wut ku ñu jidu par ndax faaw ñu am jiit buñu pare nak dogu liggéey di mbirum mbirum mbirum usman bu ko defee nag ali ci jamono dana waxoon ne leen léegi nañ jaayante pare nañ dugg pare biñ pare nag képp koo xam ne da nga buñ pare nag ñu ànd ak yéen wala ñi nga xam ne ñooy wali yu demee Ousmane ñu dugg ñu sàkk fu ñu jéem a def enquête yooyu bu ko defee nag après nag ña ko def ali ali ñu jàpp leen ñu jàpp leen def ñoom atal islam léegi nag ñoom Muawiya nga xam ne dañoo wutu wutoon ali daan na ko déedéet duñ naqalool liñ bëgg mooy tatabaahum waqtuluhum moom moom déer faaw nga faaw nga topp faaw ñi enquête leen rey ba pare nag euh, taxawal ci ñoom atte sharia mooy ko rey dañ lay rey Ali na jékki-jékki rek jël ay nit rey leen te amoo amoo enquête bu wóor loolu loolu warut kon nañ lijjanti lii nga xam ne boo amul rek fitna mën naa am ba pare mooy mbirum imaama mbirum kii war a jiite loola waraloon mbirum coow yi la ñee gise nii kii Ali gise nii loola waraloon coow yi xosoon digg ba fitna yi doxoon seen daal di am waaye nag kenn ku ci nekk nag ma nga aljanna wa kullun min al fariqayni mujtahid ñoom ñaar ñëpp ibni ibni xajar ñaari ñaari kuréel yëpp dañ doon yónneel ijtihaad am na ci saxaaba yoo xam ne nag moom seen yónne wu ci moom am na ci ñoo xam ne dugg ñu woon ci xeex bi am na ci kuréel ci saxaaba yoo xam ne kenn ñu faruluñ kenn ñeen daal jaayante nañ ali noppi nañ waaye kenn dugg ñu woon ci mbir bi waaye bi ñu rey Ammaar nag ci la ci la leer ci ne kon dëgg gi mi ngi àndoon ak Ali ahlu sunna wal jamaa yëpp daal di déposé ne la xewoon ci diggante Ali ak Muawiya ak la xewoon ci diggante Ali ak Aïcha ak Zubayr loola Ali moo ci amoon dëgg te mbirum tawil la woon mbirum ijtihaad la woon Ali moo amoon dëgg kon Ali day am ñaari yool comme yu atalaan ko ijtihaad ba jëm jubbi day am ñaari yool waaye Muawiya moo juumoon Muawiya moo nekkoon ci njuumte comme saxaabal day juum comme ñëpp saxaabal nit la woon nekkul maxsuum معاويه مو نيكون تي جونته وكذلك آه، عائشه اك نيغا خن عائشه اك زبير اك صالحه نيوم نيو نيكون تي جونته اا آه، آه، الوسن وجماعه دكون نتي الوسن وجماعه دين فارفرلو مودا ابن حجر ده واتفق على ذلك اهل السنه بعد اختلاف كان في القديم ولله الحمد لانه من داجي العباده الحمد لله اهل السنه وجماعه لنجي موي دانيو مجي دبو ني نعم، سي كات علي نبي طارق مو امون دغ mbir bi ittihad la won kaana al amru mahall ittihad da ñëpp dëppoo nañ ci ne Muawiya dafa maa la xewon ci seen diggante Muawiya moo nekkoon ci njuumte Ali mo amon deug dëgg dëppoo nañ ci leer problème legi nak ci ci ay jógee nak di ñëw di takfir di takfir di di leen wax lu bon di leen wax lu ñaaw lu nekk lu leen wax wal iyaas billahi tabaarak wa taala loolu ko fi def bu ko nak bu ñëw ci ay bu ñewé ci yow yow mi xamul taarix xamoo tasbiraat yi benn ñu indil loo xam ne mawdu la wala ñoo xam ne mi ngi ci kutubu taarix waaye amul sanam daa wéru di mu aarada ak li sax ci sixaax yi buñ la ko indilee nag ba tegal la jàngale seen téere moo tax taarix xayaatu saxaaba bul ko jàngee mukk ci ab siya boo bëggee xam xayaatu saxaaba da nga koy jàngee ci ahlu sunna ba pare nag doo koo jàngee ci siya yi nga comparé waaye boo ko jàngee ci siya yi rek mënoo bëgg saxaaba yi ñoom dañuy indi dañ koy indi bi yaani bi ab shay sura ba buñ par da ngay ni ñii moom ay bandi lañu woon yoo xam ne moom ay bandi wala iyaazu billahi tabaraka wa taala noonu la demee moo tax sun réew mi jamono ji gis ñu bëri ray réeral nañ leen Muawiya ne lañ koy wax Muawiya tu am Sufyaan nga gis ñoo xam ne ay silsila la ñuy def di jàngale kan mooy Muawiya tàmbale ko ci ngoneem bu ñu amoon des dañ topp silsila yooyu yëpp ñu daaj ko sànni ko ci àll nga xam ne bu ñu tuddee Muawiya yow da ngay bëgg kon loolu mooy li amoon seen diggante ala kulli looy rek loon waaye du dara mbir mbirum tawil la woon ma ali mu amoon dëgg ñee ñoo nekkoon ci njuumte loolu la woon te itam nee na mujtahid boo gis mën naa juum ndax ñu wax ci xadis mooy ku ijtihaad koo xam da ngaa def ijtihaad daal di juum kooka ñaari benn ngi am waaye ku def ijtihaad daal di def daal di jëm njub da am ñaari yool loolu la muy teg mooy la xewoon seen diggante maxal ijtihaad ahlu sunna wal jamaa dëppoo nañ ci ne ci juum te loolu jeex nga xam ne fitna woon yoo xam ne yàlla da koy nattoo xeet wi ngir natt seen ak ngëm mooy nit ñi nga xam ne yàlla leen tagg ci alxuraan ginnaaw bu leen yàlla tagg ci alxuraan pare yàlla dogal ci ñoom ay fitna doxoon seen diggante léegi yàlla da nga ci yow jullit bi ndax di yow di nga mën a dëggal alxuraan ci ni ñi lu baax la ànd ak boo gisee fitna yi xewante yow nga euh, alxuraan wax ne ñu baax lañ ànd ak ànd yi tax fitna yi tax nga gëm ne ñoom duñ duñ ñu baax boobaa da ngay alxuraan kon loolu mooy yàlla xikma ji mooy li yamiza alxabisa min atayib am naa nag ci beneen audio bi dañuy leeral genn euh, dëdd ji ali dëddoon ak xasida gim ci way buñ ko firee nag doog a ñëw ci Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu mawqif bi amoon ci ali buñ pare nag ñu ñëw ci maw ahadis mawdua yi nga xam ne chia yi créé nañ ko euh, saqal ko ali te ko comme ni ko Ibn Hajar waxee nee na ali soxlawu ko ngir leeral ba tey ali abi talib ku dëdd woon adduna la te loolu day day day feeñ ci xasidaam googu nga xam ne moom lañ ko askanale muy alqasidatul asma la tudd boo déggee alqasidatul asma yéen ngay askanale ali ibn abi talib xasida googu ali abi talib moo ko way xasida gu yéeme ci ak dëdd la ak yeete ci adduna xam ne adduna bu dara doomi aadama fii ab robukaay képp la waaye këram dëgg-dëgg mooy la tàmbalee bammeel jawal yi sowu ba yowmal qiyaam xasidaam googu nag la waraloon bind ko mais benn waaye dafa ñëwoon nan ko ali yaa amiral muminin man day dama jënd ab digënté dama jënd ab tool dama bëgg nga signal ma fi kon alquran dafa dafa digal nit ñaar nit buñu jaayante dara ñu ko signé nga fédel ma nga ngi bindal ma signé wa ashhidu dawa adli minkum waaw waa ji bi mi sàkku ci Ali nabi Abi Talib pour mu bindal ko sonal Ali lool Ali sandir ni kii parewut pour tukki parewut pour wuyu ji boromam sentir ne kii parewut pour waajal faatu ndax la fekk ni lu mënta ñàkk la lu jafe ci nit ñi la nit ki buy tabax kër buy waaj wut kër wala muy kooku jamono jooju xalaat kooku jamono jooju lu ci bëri néew na ci nit ñi muy xalaat ne ko léegi maam du def ci xelam mukk ne suba daa war a faatu léegi nit ki tabax kër nag foofu dafa am xaf la nit ki buy tabax kër ngir dëkk fa foofu xaf la gu yéeme dafay am kii ko am ak seetlu te nit ki mi ngi tabax kër gi te xam ne ni kër gi du dëkk waaye am na kër gi dëkk mais gis nga ni ñu ci sonné di ko tabax léegi-léegi sax nit ki mën na wax ne daam ñu ngi koy tabaxal fekk ni déedéet moom defagul ci yëm dafaat doon nag ginnaaw bi foofu xaf la gu doy waar ma fi am ali nag ci la taalif yi xasida googu dana ko an nafsu tabki ala dunya wa qad alimat أن أن أن السعادة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير تاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها قصد قدلة وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها حديث أبو قدر ننكو فيه غير لا رد بدك يخدم ونكون في علي بن أبي طالب كرم الله وجهه علي لو هني أن تبكي على الدنيا وقد علمت أن سعادة فيها تركم أنا آه، بطن بما آدم دي دي جوي جمع دنيا كي أدنى دي جوي نجير بغي أدنى أجاكم دي كي أدنى دي جوي نجير نياك أدنى سرمي آدم قمنني والله لي لي أتخي دق دق سي جمع موي باي أدنى أقوى أدنى باي أدنى أقل كبيرة بني باي أدنى كبيرة موي دقنا بخنك إضاعة الحلال ولا تحريم الحلال أو إداعة المال علي حديثنا لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت بعيد. نتكي جينا بوم فاتو امول امول جين كير غومي دك غودول كير جي خامن بي مي دوند لا كو تابخون مانام نيتكي امول جين كير بو امول جين كير غومي دك غودول جيم تابخون بي مي دوند لول نام جوبلو سي كير جيم تابخون في سي ادنا دي موي جيف باخ جيف يم نون جيف خامن جيف يم تاخ نيتكي سي لا تابخ لي بوبم بناها بخير تاب مسكنه wa in banaha bi sharrin xaaba baaniha ali ñe na bu dikki bu faatu bu fekkee ni kër gi mu wër dëkkee da ko tabaxoon ci ci lu baax ci ay jaamu yàlla ci ay nawafil boobaa bu duggee ci bàmmeel rek waa day ne lii moom moo ko tabax moom kër gii moom moo ko tabax ndax moo ko jëfoon day day neex ci moom lool dana teey ci moom waaye bu fekkee ci bon la ko doon tabax ci jëf yu bon ak jëf yu xaraam ak wuuteeg ndigal bon tabax dana la kooku bu duggee ci bàmmeelam du am lu ko neex ndax moo ko def kër gi kër gi moo ko tabax lam fay fekk yëpp dana xam ne kër gi moo ko tabax ali teg ci bay bu yéeme amwaaluna li zawil mirasi najmauha wa duuruna li xarabi dahri nabniha mu ne ñun day sunu alal yi ñuy dajale ak di ci kurti kurti boo seetloo ba seet da nga gis ne ñun daa am ñuñ koy dajale waaye du pour ñun maam dañ koy kurti kurti di jël lu nekk mën nañ cee def te du xaraam mën nañ cee mooy yàlla mën nañ ko sàkkoo ci anam goo xam ne daganu sharia di sa di buñu sàkk ko noonu waaye lépp bu fekkoon ci ñun la jëm sax nga ne waaw waa si sama mool bi waaw waaye nag ñun daa am ñu ngi koy dajaleel mooy sunu mooy sunu alal yii ñi ñu war a doon képp lañ koy dajale waaye du pour ñun kon lu fi jar léegi lu fi jar leneen ak am ak saxaf ci ci dunya mu ne wa duuru naa li xaraabi dahri rabbiha sunu kër yi tabax ci adduna nag di ci rawante dañ koy tabax ngir ngir jamono ñëw rappal ko la sa kenn gis nga boo demee ci ay gent di nga am ak waar gu métte métti بسكن علي ضد جمأمر من أين الملوك التي قد كانت مسلسلة حتى سقاها بكأس الموت ساقها أنا بولي خمني dañoo nekkoon nit ñoo xam ñu am pouvoir nit ñi jiital leen ñuy rëy rëy ci kaw nit ñi ba fa ba dee ñëwee da leen a màndal ay kaasal ñu la defaatu fa kam min madaina fi l afaqi qad buniyat amsat xaraban wa asna al mawti baaniha ñaata ci ay dëkk nga gis yoo xam ñaata ci ay dëkk ak ay kër yuñ tabax ah li jamono ji mujj na daal di nekk rap la ko waral mooy faatu moo wàcc ci kër ga daal di rappal ña fa dëkkoon xam nga léeg nga gis kër goo xam ne ab tabax lay doon nii kenn dëkk kër gu gent kër googu boo xoolee ay nanga bi at ci ginnaaw am kër gu bëri woon nit la waaye pa ba fa dëkkoon faatu na ña fa dëkkoon nit faatu nañ ñi ci bëri faatu nañ ñee mën nga gis ne kay gent na mu ne mu ne adduna noonu la mel mu ne laa ila dunya wa ma fiha فالموت لا شك يفنينا ويفنيها يفنينا ويفنيها بول جيغ مخ جيم سي ادنا اك لا دا ادنا امول بن شي ساكن ياغ ياغ دا نيو جيخال جيخال مانام دي سي بوبم دا نيو في جيجل سي ادنا لكل نفس وان كانت على وجه من المنيه امال تقويها كون قصر غود رك بو خا القصير في الاسماء لم يتك ما علي ابي طالب مثلهم كو خامني عندك خام خام بي نيكون سي موم ak ragal borom bi tataal gi ak njàmbaar gi nekk ci moom ak dëddu adduna yi daa nekkaale woon ci moom moom Ali ibn Abi Talib ak dëddu adduna gu mat sëkk daa nekkaan ci moom léegi nag ñu leeral sëñ Tuba radiyallahu anhu kan mooy Ali ibn Abi Talib fi qasaid Cheikh al-Khadim man huwa Ali ibn Abi Talib fi fi qasaid Cheikh al-Khadim kon kooku mooy Ali ibn Abi Talib mbokk yi ci ak dëddu addunaam ak nam merool ci xam-xam waaye Serigne Touba nga nga ñëw ci sunu mag ñi niñ mel niñ meroon ci Ali ibn Abi Talib ak nañ ko bëggee woon ñi nga xam ne sunu mag ñi yoruñu woon pas-pasu pas-pasu pas-pasu nasbu waaye yoruñu woon pas rajo bay dañoo yoroon pas-pasu ahli sunnati wal jamaa bal ñoom ñooy kàngami ahli sunnati wal jamaa yi ci jëmm nga jël ko demee ni Serigne Touba radiyallahu tabaraka wa taala anhu wa ardah moom moom ci ay xasidaam yi muy taggi Ali bëri na Eh, waaye mbokk yi dañuy tànn ñaari xasida wala benn xasida gisa danga looy dañuy wax ne suñ tubaab radiyallahu taala maam daye bi mu daye bi mu Ali ibn Abi Talib jéggi na dayoo eh, waaye bokk na ci daye bi nga xam jox na ko ko boole ko ñu ci def ñëpp mooy tawassul suñ tubaab radiyallahu ku ne xam ne na ci ñam daan ñaan ci seen daraja mooy tawassul mooy Ali ibn Abi Talib wa bi ci wa bi siddiqi وبالفاروق ثم بذنورين ثم أبي سبطين يا الله يلا ما نقول نعم لما لا واجنا ما نعم؟ نقول نعم كدرجة سيدنا أبو بكر أكو عمر أكو عثمان أكو علي أبي سبطين أبي سبطين العبد فهو اللغة أه، العربية جاك بيسين تبع جاك اللغة العربية موي فخنا بقى كان كتير نك أه، وعليكم السلام فخنا بقى فخنا بقى كان كتير نك رك جار وسطور لجرد وعيسى الله كان تلو ولا صبر قبل الجار وبالصديق أبو بكر وبالفاروق عمر ثم بذي النورين عثمان ثم أبي سلطين ما علي بل من ذكر من ذكر لكن سين سين تبار رضي الله تعالى عنه كان عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة ما ما تي ما علي أبو بكر لي جتل تكي عمر تكي تكي علي وين لا يوقف علي ينجني البيوار مرة بارمي شخص لم يقدر الغني المغني دايوخني وأفضل الصحابة المتبعة لذي المزايا الخلفاء الأربعة صديقهم عمر ذو النورين زوج البطول من العارين ووجب الإمساك عما شجر بين الذين ذوقوا من فجر إذ كل واحد على حق اليقين عليهم رضوان مرق المتقين واذكر جميعهم بخير الذكر ولا تكن في أبد ذا نكر سنجب عنينا كي جنت صحابي آه، manam ci gën ci sahaba yi moy ñent ñi ñeent ñi nek ci jitu moy Abubakar ci tege do am ka ci tege du Usmaan bi ñëw ci Ali dana bi xam nga la tuddee Ali zawjil batuli man na fal aari dana Ali moy ki nga xamne mo dak ñaari gatché yi moy gatché ak àdduna gàcce ak àllaxira ci xam xam mu ne wajaba al imsaaku amma sajara bayna alladhina dawakhu fajara neena da la xewon seen diggante nak mooy dama xam sax la xewon diggante Ali ak aisha ak salha ak zubair ay la Ali ak Muawiya ci Tuubaa ne lol da war nga nopi ci bañ ci wax ndax loolu kaanal amru mahall ittihad jamaa xam ni ne ay moo nekkoon ci dëgg wax nañ ko ci ñoom dañ ko ahlu sunna wal jamaa duñ taassub leer ne ali moo nekkoon ci dëgg ñi nekkoon ci njumte mooy ay at ña waroon ña jàkkaaroon ak moom waaye nag mbir mi mbirum ijtihaad la woon moo tax Sëñ Tuubaa bay bi ci tege moom gën ëppal solo mooy id kullu waxidin ala xaqil yaqin alayhimu ridwaanu murqil muttaqin ñoom ñëpp kenn ku ci nekk daa nekk ci dëgg مرحبا انا واذكر جميعكم بخير الذكر ولا تكن في ابد ذنكر كو تي تودي نيب نانتي تود ناخول لا غنا باخ نتا دوك واي بول تي ودي كين كون لول ووتي فاس فاسو الشيعه الرافده واي نك لاي تي علي سنتو با بو ديمي تي الرائيه كتي دام بوغي الرائيه فوف دامي تاغ صحابه تاغ ييمي مام تاغي دا جيت او بكر نك واي تاغي نامو تامبالي را جيت دا تاغ صحابه تاغ ييمي بو اغي واخ جا ماغا تامبالي نان ا آه، والآل من باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للورى سادات أخيار إذ بعدهم هاجروا والب... يعني وصحبه الغر من أقرانهم سبقوا إذ بعدهم هاجروا والبعد أنصار لهم لدى الله تخصيص بما ظفروا هم النجوم لقوم في الدجا ثاروا لهم لدى الله تنويل شفاعلة إذ زايل الكل أدناس أدناس وأكدار وهني sahaba yi ñom ñom ñoy biddiw yi nga xamne ñoy ñooy gindi nit ñi ci ak lëndëm legi nag ci la tàmbale ne ñu tàmbale ci aboubacar amma aboubacar ni amma aboubacar ni Siddiq sayyiduna fa lil jamii bi an qad faqa iqraru bi pare bi wax ay ngëneelam yu bare ba ñu ci amar amma abu xafsin alfaruqu sayiduna fa fi mazayahu la yartabu dayyaaru

أما ابن عمي رسول الله سيدنا زوج البتول علي فهو مختار نينا نعم. بدي كي خن ماي باي تخو يونتو علي ماي دوم باي تخو يونتو علي سلام ماي علي ماي علي دوم باي تخو سلام نعم. باي دي أبي طالب آه، آه، أبي طالب مامو مجي ويجرو آه، يدع سلام ماي عبد الله لا ما هنا ابن عند رسول الله ما راح بدي ماشي مقدمة الأمدح لي وقت أما أبو سيمتي نمكي وخيصة day wax ne Abu Sibtay al-Bukhari wa huwa ibn ammihi moom ibn am da koy utilisé lu bari bari أبو سبتي المختار هو ابن عمه علي على فقير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يخلقه dafa génn dafa génn mu ne am am na am rasulillahi bu dee ki nga xam nag mooy doomi bayta mooy doomi bayta fi islam sayyidina di sunu sang زوج البتول كوكو موي سخناي بتول موي موي بوروم كرو البتول البتول نيان يعني مو فاطمه مودن لي فاني تودو بتول نك واي فاطمه الزهراء لا جنم علي علي فهو مختار نين يعني عاد كوكو موي علي كوكو نك كيو تان لا ديغلو نيم كاي ميلالي موني له الشجاعه والعرفان مع شرف والقرب والحب والقرب وهو الانس والجار امنا جامبارتي نين علي امنا جامبارتي امنا قم يالله am nag tedd ga am nag bëgg yonent bi alayhi salaam am nag jege jege yàlla te it moom moom mooy ki nga xam ne moom mooy suñu wéttal mooy suñu dëkk ba lii nag ay ngëneel la yoo xam ne daa sax ci Ali ibn Abi Talib léeg-léeg ak chia ñëw ne la nangam njëkkoon naa koo leeral ci ne chia yi buñ naree lante rek da ngay leeral benn bu ci nekk nga nga faram-fàcce ko waaw suñ tubaa nag du càggee ne sajaa gi da ko jagleel Ali donc boo demee ci ma wax bi naa fi li muy wax كل شجاع له اتباع له ارتفاع وقت الرفاع بربك مقدمة الأمدح سنة كلا نون نيمين أسود أي أسود لين تبي مام أي قايدة من باب العلوم شين كبا جانا يعني كون عليهم بصارف كأما نجام بارسلا كأما قم يالا كأما بجلا كأما بجلا وايد مم يوكل باب العلوم موي بنت خم خم أبو س... باب العلوم أبو سبتين ثم له هدى الملا ولخير الخلق انذار ni la ali bi talib mooy buntu xam-xam mooy bàyyi ñaari sët ya ak xibatu mooy sët boo xam ne daa tukkee ci doom bu jigéen mooy alxasan xuseyn moom mooy ki nga xam ne moom la ñeel mu gindi mbindee mu gindi mbooloo mi waaye yudu ay salaam moo féetoo inzaar gi day junj xadis boobu ni aliyul haadi ana al munzir wa aliyul haadi loolu nag da koy nettali min baabi da koy da koy nettali min baabi alfadail lii mat naa xam suñ tubaab lahu aqarra rasulallahi manzilatan minhu ka haaruna min muusa lada saaru ngir yàlla saxal na ko manzil bu wàccu bi kawe kawe mooy nduróole gim ko nduróole nduróole gim nduróole diggante ma moom ak Moussa ak Haroun wa min shajaa'atihi an muttaji'an فوق الفراش حول الدار فوق فوق الفراش وحول الدار مكار عليه برة خير الخلق متكئا ولم يصيبه من المكار أدرار مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفة أبصاره وأرسل الله جبريلا وصاحبه ليدفع عنه ما يبقيه من جاره وحينما خرج المختار واجههم بقبضة من تراب والعدا حار جلال مني بوكنا جن جنب رك علي أبي طالب موي مملي رأسلام باي ور مفنان شكاو نيجم تين مفنان تين نيجم باي كفا شكاو لالبا شكاو شكاو فنانو كايبا بيا خبي لي يفرني دك كتب خي نيجي شب بنتو كرجا دخاري أسلام جين بن فاجعل يرى أسلام باي كم مان توبا مراد شيء ويرو علي نكفا تدرر لا ركوف anak nak bipu non bunek non ya moy yéefar ña waa Quraysh gi taxawon kenn ku ci nek ñanga taxawon diko di wa yib ajam genn alayhi salaam génn bàyyi leen Jibril euh, mu daal di aar Yusuf alayhi salam Yusuf salam bi mi genn daal jël ben ngëbu suuf daal koy xëpp ci sen karam kon ngëneel kon Ali Abi Talib ay ngëneel la am dafa am da nek sahabo am ay ngëneel kon lolu yakarna mom lañu deylo euh bu ko defé nak ñi ñew ci ahadith yi nga xamne achia dañ koy faral di euh, saxalal ay xadis yoo xam ne benn wéru ci waaye xadis la yoo xam ne xadis yu danger danger la euh, léegi nag mbokk yi ànd ak loolu lépp ngeneen yooyu yëpp nga xam ne sax na ci ari yi borom bi taala digal ñu ñu ñu digg doomu lu may ne am na ay nit xam ne dañu daal di tooñ ali ibn abi talib dañ koo tooñ am na nit ñoo xam ne dañu ñëw tooñ ali ibn abi talib niñ ko toñé moy lan dañu ñëw askanu ci askanu ci ñoom di wax na ñoom shiatu ali lañ di wax na ñoom shiatu ali lañ ash shia nak kuréel la bo xam yag na fi lool ba suñu jamono ji euh yàlla na leen ñu nek ñoo xam laysa lahum asanidu quran wala asanidu amuñ isnadu quran amuñ isnadu sunna asanidu quran wa sunna yanquruha ahlu sunna wal jamaa'a min yuqam bañ na bi seen xam-xam yu bari bari ci ahlu sunna lañ koy jëlé andak lool lépp ngir bëgg téngal ci ali comme ni ko alimam ibnu xajar di waxee nee na rafida yi créé nañ ay xadis yu bëri yoo xam ne ay mawduaat la ci ngëneel ali ngir ci ngëneel dolli ci yeneen yoo xam ne dara benn bokku ci yoo xam ne ali sax jëm jëmmi ali ci moom soxlawu ko lu ko soxlawu ibn ibn xajar nee na waxu xamiyun anha jëmmi ali abisa ci moom du ko soxlawut xadis yooyu nag moom lañ bëgg tànn yenn leeral ko ci ne ànd ak ali li mu am ci ay ngëneel ànd ak loolu lépp nag am na ci chia yi ñu ngi koy kéréel ay xadis ندير باقي تاع سهل نعم، علي معصوم لا اكيد انا كي كي سهل أه والعياذ بالله تبارك وتعالى لول نك لو يالا يغنا تو ام نيت كو باخ بو ген تلو تي تاريخ جام يالا باخ بو يالا مايون اك فتح ما يالا ماي كو اوبي يالا مايون كو خول نيجي دمو تي موم كو ميلو ني ليغي ريك يالا توكو غيناو غيناو دوندم ما توكو بن تي نجابوتام ام ني دند لول داي ام أه، واي واي غير ليرال ريك موي شيعه الرافده comme ni ko al imam al imam malik ashhab ibn abd al aziz dafa wax ne al imam malik dañ ko war a yóbbu mbirum chia mbirum chia de bu leen nettali ci ñoom xadis rafida yi ci seen jamono daan nettali xadis moo tax may wax bu ndax ñom dañuy teur ay hadith mo tax ñom dëgg na riwaay ci xadis surtout na rafidi boo xam daa nek shadid shadid at-tarakhud shadid shadidu tashayyu te it amu ñu taxaful moy dañ daan wax lo xamne كرا اي حديث يو خامن نيوكو نيوكو سوخ سي سين نياك راغال بوروم بي تبارك وتعالى موتاخ اعمش دا لو خاني مان داي نيو دا نيما رب تي نيت نييب دب ما جيغي لو ماني لين لين دان تودي اي واخ كات لو خاني واخ كات لو امود لا لغي نك تي لولو الرافده دا نيو كيري اي احاديث اي شيء اي رافده اي احاديث يو خامني يتي اوب موضوع لا مان جي تالي نيت كي مي حديث خالي تي موضوع لا بوكو جي يوي موي ا رافده دا نيو ñom rafida yi dañuy wax ne te loolu boo demee ci nahjul iman bu ibnu jabr ibn na ko fa ci chia yi boo demee ci bi xaawlu anwar majlis yi rotoon na ko foofu boo demee ci mayani ji bu ma mawaqif shia in rotoon na ko boo demee ci al murajaat bu abdul husayn in na ko mooy affaire boobu nga xam ne ñoom dañuy wax ne asalaam wax ne yaa ammar ibn yasir in raayta aliyan qad salaka waadiyan wa salaka naasu xullahum waadiyan xeyrahu fasluk maa ali fa innahu lan yadullaka ila ila ridan walam yufrajika an hada xadis bii nag moom mawduu la برم خم خمي بريبر لارنا نتنا حديث بموضوع له فدي بشأن الموضوعات بابن الجوزي لارنا نتنا موضوع له نهنسير لبا خمي ابن الجوزي دقور دقور دقور تايف جاك للكتاب حديث نحن أي موضوعات له بدي بشأن الآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة السيوطي برضه نقف إن حديث بموضوع موضوع موضوع لما يحدث بخمي مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو صلى الله عليه من نرجع مسند ليه ليه صح بريمش الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة بو الشوكاني رتب قفنا الحديث بي موضوع له بريمش الكناني آه، كالشريعة المرفوعة عن أحاديث الشريعة الموضوعة رتب قفنا الحديث موضوع له بريمش محدث محدث القوم محدث أدعياء سلفية هي خلنا أدعياء سلفية موش المحدث مي ألباني ما يرتب قفنا الموضوع له نعرف المي وحجين وحني أم أم حديث جديد وحني يدعي سلام daa wax ne ñoom dañuy tuuma it ak ñu def ne daa wax daa wax ne daa waxoon képp ko xam ne daa bëgg a génn képp ko xam ne daa bëgg a xool yónni yàlla nuux ci dogoom ga xool yónni yàlla aadama ci xam-xamam xool yónni yàlla ibrahima ci lewetam xool yónni yàlla moussa ci ak xereñam xool yónni yàlla isa ci gëddoom na xool ali xadis boobu it kazalika danga gis ne ñoom indi nañ ko ba demee ci al arba'i shiraaj rek na ko fa الصدوق إنه في الأمالي الحلي إنه في نهج الحق العامل إنه في الصراط المستقيم نمشي شيعي أي مصادر شيعية آه، المرعشي انه وجه شرح اصحاح الحق بحراني انه وجه غايه المرام محسن امين انه وجه اعيان الشيعه عبد الحسين انه وجه المراجعات انا قلت نحدد به موضوع له در ويرج حدد لبو خلني موضوع له بن ويرج أه لغاية قلت نحدث به موضوع لابن الدوسي وصلنا كنت مثالي وخمسة الآلي آه، السيوطي كالآلي أك شوكاني كالفوائد المجموعة حدد لبو خلني بن ويرج بين ما يبوك نحن ليه واحد موي yonent bi alayhi salaam ak yu bare bari daal maam seen seen seen axaaris yi nga xam ne ñoom dañ koy rotal naan du wax ne ali ma al quran wa qaama ma ali xadis ba tumu wéru daif la loolu it ay axaaris la yoo xam ne benn wéru ci waaw bokk na ci li nga xam ne danañ ko askanale yonent bi alayhi salaam ci ne yonent bi alayhi salaam daa ñëwoon ali daa ñëwoon daal dëgmal yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam ne ko man day ak kii ñooy lay ñooy lay ci xeet yi ñooy ñooy lay wi ñun ñooy lay ci xeet yi alayhi salaam loolu ku ñu loolu boo demee ci al udda ibnu bitriq indi ko foofu boo demee ci al taraif ibnu tawus indi ko foofu boo demee ci benn hadith karam al xulli indi ko hadith la boo xam ne ala kulli xaalin mawdu la maam mawdu la tànn comme ni ko al-imam Suyuti leerale ak Shawkani ak ibnu al Jawzi ak al Kanani bokk na seen ahadis yooyu ba tey mooy wax ne ali ci jamoom dagan na ma dugg ci jàkka daal am boobu rek am am na ci kuréel bu ahlu sunna ñu ko reetal nag moom am na ci yoo xam ne ay mawduaat la mais teewut ñeen ci ahlu sunna lañ ko nettali waaye nag dañuy dañuy leer na ci wéru nag moom kon ala kulli xaalin achiatu rafida lii la ibnu ibnu alqayim lii la ibnu ibnu ibnu xajar di wax ci téeréem boobu di al isaba di wax ne rafida yi som maanaam créé nañ seen ahadis askanale ko ali muy xadis yoo xam ne bar rawir yëpp ay mawduaat lañ bëree bëri xam naa bu ñu ko toppee day jox doon a gudd te silsila mi ngi gudd ne du defe naa yi bëri ay mawduaat lañ benn ni wéru ci yëpp daif la te loolu ibn ibn nee na nee na te yiñ ko kéréel yooyu ali sax soxlawu ko ci jëmam waaw moo tax alimam ibn kathir boo demee ci al bidaya wa nihaaya day wax ne ahadith yu mel ni yëpp min xuluwi rafida daa bokk ci ceengalu rafida yi ñoo koy créer rek mais dara amu ci léegi ala kulli xaal daal di gàttal kooku mooy Ali Abi Talib jaam bu nekk jaam baax boobu boobu bu nekk da nga gis bëri na lu ko yàlla natoo ci ginnaawam mooy ñi askanoo ci moom te bokkuñ ci ñoom Ali sori na ci ñoom mooy ak chian rafida yi nga xam ne ñoom la ñuy gis kon loolu la muy tekki mooy ne Ali bari un minhum li xew ci Ali mooy li xew ci suñ mag ñu baax ñi li suñu mag ñu baax ñi kenn ku ci nekk ci saw yoon wa nga xàll yoon wu set picc waaye jamono jamono li jamono gën di dem yàlla nattoo la ca ginnaaw ay nit yoo xam ne ñu askanoo ci yow sa bokkuñ ci yow comme na ko sëñ Tuubaa radiyallahu tabaraka wa taala anhu wa arda waxee woon ca xutbaam bu siw boobu ca njaareem comme ne ko euh, comme niñ ko wartale ci téere boobu day xel di la Cheikh al Xadim ci ci kii sëñ Tuubaa xutba woon ci ne man day dana am jëmmi jamono ci kanam nit wo xamne dañuy feul am mbolom mbéyri la mo xamne nga jawali sawara te kenn mu na dem sawara sumar la wax mbolom moom ne li ma ci gën métti moy dañ may dañ may tuddo man dañuy wax ne man ci ñam lañ bok señ ta ba waxe waxee laay jooju ba ma waxe lo par da jàng laay joji de wa ma kuntu mutakhidhal mudallina aduda man set naa ñom nit ñicc lamuy tek moy waju mooy jo gis léegi-léegi ci ginnawam yàlla dana na ñuy askan ci ñoo xamne bokku ci ñom baraun minhum moy ci dox ci digende ak chia ak ali nabi talib وهذا القدر كفاية وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا